mbokk Samagal TV mbokku internet yi ñu ngi fii ci euh, première édition Saldek macha allah ma taxaw ci boxe boo xam ni le champion Afia espoir mal ki nga xam ni moom moo jël premier euh, alerte euh, alerte bi passé ñëwaat na fii confirmé moo xam ni mooy Saldek maa ngi lay nuyu Baye Sall. maa ngi lay fay. Mhm. naka taw feex yi mbaa lépp jàmm nuyu waa Samagal TV ñëpp mhm. di leen bëggee leen jox seen wàccuwaay mhm. di am mbégteeg kontaan pour def ak émission tey macha allah

waaw Afia ñun amoon nañ yaakaar ne hmm. maanaam dafay confirmer hmm. ndax xar yiñ ko boole moo man waaw waaw xam nga kon confirmation bi du jafe waaw boo dee ñoo xam ne yaa leen man voilà don xale bu ndaw man hmm. leen xam nga loolu du ñu bett ci moom Afia ku xam ci niñ ko tëggee ak xar yi ko composé ndaanaan la te eh, xar la boo xam ne dafa complet waaw am na ay maturation yu exceptionnel voilà te xar bu mën a production production la waaw da gis doomam yi li mu fi teg wax dëgg yàlla dal na xel voilà ku gis li mu indi fii xam nga ne hmm, am na nu mu ñëwee voilà te maa loolu da ci baax boo mënee produire ba noppi am ay macération loolu élevage da koy soxla am beauté te kii njariñu élevage la quoi voilà tey dama bëgg rek nga dellu si waatal ma pourquoi le choix da Dardas nan lan lan lan moo indi loolu yëpp. waaw xam nga tay bo xolé Dardaas tay mal bo xamne dafa complet hmm. tey ndaanaanu xar di doomu Ninzat Ninzat di doomu Latsukaabe hmm. waaw ma jeur ben setu Muxsin hmm. jox ko ben doomu Masayer bu jor la jor yaayam doomu salum salum la moo am dan ño bok yaay ma tek ko ci ma jël doomu Muxsin bi tek ko ci jor mu gennel ma ay seex ma jël bu jigen bi tek ko ci dardas mu gennel ma ki ki bo xolé giiram rëy dafa nekk ci moom mm-hmm. voilà boo xoolee Boy Badu maamam la mm-hmm. Muxsin di maamam mm-hmm. Saloum Saloum di maamam magistrat di maamam ah. ba noppi Nimzaat di maamam Dardaas di baayam waaw kon xar bii da ngay xam ne lii ko boole lu wóor la voilà xar boo xam ne mën na yóbbu élevage fu kawe kawe kawe kawe kawe tey lu mu génne fii waaw ah, fii mu ngi génne ay maturation mu jéggi dayo ma ngi génne cent quatorze point cinq hauteur mu ngi génne cent quatorze point cinq Touba bas, mais il a fait 15 mois. 112. Wow. même pas un mois, Mounio, il y en a 112.5. Bref, 2 cm de gain de tout bas actif. Bref, LCS. Voilà. Bref, LCS, 150 l'an. 154, il y a carrément. 154 tout bas. Puis Mounio, il 156 LCS. Ok. Quand Mounio, il y a ni, Mounio Mag. Mounio Mag. TP, il y a 118 Touba. bas. Puis Mounio, il 125 TP.

fi nekk fi yokk na hauteur yokk LCS yokk poids yokk TP. voilà xar bi euh, da ngay gis ne dafa yokk lépp te bi ma jógee Touba dama ko bàyyi muy tëb. waaw comme dañu yor base femelle bu mucc ayib. dama ko bàyyi muy tëb. voilà après nag euh, foire bi décidé wu ma woon dem naa bañ na suba la xar yi dugg ci laa soog a décidé pour soog a ñëw. ah d' accord voilà. kon nag mais normal nag parce que gën nga xar bu tollee ci espoir génnagul espoir am dafa war di confirmer ay victoire am tey na nga na nga indi doomam kan mooy doomam. waaw domam mu ngi nele après dinañ ko présenter moy añel bobu mooy añel bi voilà mooy añel bi añel bi boo ko xam nga na sa yaram day daw mom ñaata mois arbi limu tek teg ma ngi am 3 mois ma ngi am 3 mois ana yaayam voilà euh, yaayam dafa daanu na yaayam dafa daanu ñaari femeli nga andal kan yu mu àndal kan wa ñaari femeli ma ngi indi safli mafli ak euh, ngalam ngalam ngalam di doomu ngalam moy borom ndiglu wex li safli mafli doomu sorol sorol di doomu gaynde macha allah waaw yaayu ngalam di doomu salum salum macha allah beneen femelle bi mooy safli mafli moom doomu île de Saloum la île di doomu Saloum Saloum ak Kalbin. curul bi ñu mën a curul. curul bi doomu banque la kooku mooy. carte gab moom nga fekkoon alet mu am ñaata mois. boobu ma ngi amoon ay un mois. daanaka rek presque ah. mais mais dafa dox instant bi mu ngi ci deux mois. ah mais hmm, fu mu jëm. non daanaan la kooku beneen ah. dimension la carte gab. ah dana war a non waa jën a xaar. waaw naka gaa yi xaar waaw banque mu ngi Touba ñoo ko bàyyi foofu muy dallu. muy dallu voilà macha allah. <laughs> kon daal nga fa banque ba indi indi bi. pour mu lijjanti weccit yi ah. ma ngoog waaw jeex na <laughs> tey dama la gis yow nga nekk un champion défileur tey euh, ma gis euh, Afia. ni mu doxalee tey ak ni ngay ni nga dugg ak moom ci géew bi mu nekk euh, un champion boo xam dafa neex a défilé tey noo gisee Afia yow. waaw Afia dafa dégg rek li ngay naan dégg. Uh-huh. waaw xam moo dégg daal. Uh-huh. gars dañ may laaj ba xam yaa ko yar mën leen noonu. waaw des damay toog ay une semaine wala deux semaines sax nga koo gis. waaw mu doon xar moo xam ne ci élevage dafa day marqué empreinte am incha allah parce que dafa doon xar moo xam dafa équilibré li gars yi naan maal maale. kon kii dafa góore parce que xar boo xam ne nii tey bu dee LCS da koo am bu dee TP da koo am bu dee poids am ba pare bopp bi diis moolu bopp bi yaatu corne yi dégagé ba pare. macha allah mooy loolu xar mu équilibré la daal. mais ba pare ma gis ni sa xor les poses dafa dafa daal quoi. moo mooy loolu moom dafa ah. neex défilé dafa neex défilé dafa neex défilé. lan mooy différence ah, parfois est-ce que di nga daje ay xar yu naqaree défilé. non man moom xar lu mu naqaree naqaree défilé moom bu ma ko tegee sama loxo bii téye ko bu ma ko téye poñe ko rek dana taxaw. parce que loo gis lu nekk rek xar yi daa am foo xam ne tey boo leen laalee rek danaan nemmu waaw daa am foo xam ne boo ko laalee boo ko cuqee rek danaan nemmu boo xamee nag nooy dawal oto moom boo cuqee rek day da ngay xam ni muy jugee waaye oto lu mu naqar naqari boo ko miinee rek xam nga yow fan ngay démarrer kañ ngay dugal deuxième waaw xam nga noo koy taalee oto lu mu naqari naqari boo démarrer xam nga noo koy taalee waaw loolu la yow champion nga de waaw mais affaire bi yàgg naa si 2009 ba tey 2010 2011 émission xar mi dama koo jël ba tàyyi kon loolu dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla di jàng rek ok sëñ Fall voilà kontaan nañ tey nag Afia mhm. ba fan waaw Afia ñu ngi si dañ ciy liggéey dañuy tey liggéey pare guñ ci <laughs> ah pare guñ ci Mm-hmm. waaw ñu ngi liggéey pareegun ci pour la moment ah, voilà xar bi moo xam nga dafa war a liggéey lu yaatoo yaatu comme yàlla dogal na am nañ base de femelle bi mm. voilà dañ ci wàcceegum waaw non li mu tëboon bariwul lool dama ko jox ay quelques doomu il de Saloum mu tëb leen waaw doomu île yi laa ko jox mu def ci ñoom tout en plus yeneen femelle ngi kër ga yoo xam ne ñu ngi koy xaar pour mu war cee liggéey mu war ci liggéey mm-hmm. waaw adresse bi ñu ngi nekk ba Lansar maanaam Ndamaatu voilà ku ñu fa bëgg fekk bo ñëwee fofu di ñu fa fekk ya, ya. numéro téléphone 77 594 97 66 mais ma ngi sant nak sama gaay yi ñom Pa Abdou ñoom Baye Sall Kune ñoom Ndoy sama xarit ah Alpha ma ngi sant gaay yëpp di leen bëggé wax dëgg yalla ñom ñëpp japp nañ ci liggéey bi wa ñom Ablaye sar ah naru seigne Fallou wa di bëggé gaay yëpp ak waa Touba yëpp kontaan ci ñoom ñoom Jibi Yadd mm-hmm. xam ga ah, ñoom El Hadj Ndiaye luftu Ndonga Ndiaye ñoom ñëpp gars yi wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi ñu ngi leen di remercier di leen kontaane ñoom ñëpp jaajëf